gaaw parce que Sénégal dafa mel ni dafa am ñaari catégorie de Sénégal dafa am ñoo xam ne nit ñi dañoo jàpp ni ñoo war a yenu xeex bi ñoom rek war a yenu xeex bi ñooy dem ci terrain bi ñooy xuloo ñooy xeex ñooy dem tribunal te ñoo ñu ab toq la ci biir Sénégal mu am na la grande majorité de ceux qui sont concernés te xepp kenn xamul ñaata la ñu toll mais d'habitude day mel ni ñoom seen yoon newul ci mbir mi wala ci salon yi la ñuy toog di ko wax kii du xeexu Barthélémy Diaz je le félicite o passage mon frère Barthélémy du xeexu Guy Marius Sagna je le félicite du xeexu Pastef waaye xeexu sénégalais yëpp la dafa am loo xam ne xel mënu ko nangu barkaati démb dafa am benn kilifa bu moo mi ngi dëkk fële ci gannaaw euh, booru Mermoz mu ne ma mbir mi da ngeen ci war a wax parce que ñun biñ fi dëkk jamono Senghor la woon waaye ñemewuñu woon tabax yenn tabax yi parce que jamono jooju dañ ko interdire woon te amoon nañ moyen mais tey su ma taxawee sama terrasse ñun dootuñu gis géej gi ma ne ko mais yow vous êtes yéen vous êtes les premiers concernés mais est-ce que tey suñu leen woon génn ngeen génn leen di ngeen génn kenn ci yéen du génn loolu nag mooy le mal du senegal soo ko waxee ñu ne wax ji dafa naqari waaye wax ñun nekkuñu fi di seet lan moo war a neex nit ñi waaye di seet li yenu maana ak lii dëgg ñu wax ko tey euh, coono gi ñu daj ak mobilisation bu ñu def pour ñu yokk deux heures de temps ci couvre-feu bi jëlee ko vingt une yóbbu ko vingt trois heures bu ñu defoon xaaj bi ci mbirum corniche bi problème bi réglé na couvre-feu boobu ñu yokk deux heures de temps lan la changé ci dundu senegal yi est-ce que yokk na seen liggéey wala seen afia wala waaye soo fi nee woon suñu pétrole ñu ngi koy sàcc suñu gaz ñu ngi koy sàcc suñu zircon jaay nañ ko suñu littoral bi dem na suñu géej gi amatuñu jën nga ne Sénégalais yi bu boo moytul soo demee obélisque doo am lu mat 2000 euh, euh, personnes loolu nag mooy problème mu Sénégal nañ ko waxante ne nit ñi xam lan mooy priorité fii nag suñu plage la ñun dañ fa yàgg di entraînement yàgg naa fi di ñëw ànd ak famille bi yëpp samay doom gis ngeen ñi ñëpp famille bi la les garçons ñu ngi nii ñëpp ba ci ma princesse Fatima ak euh, le gardien de la maison Blacky ñun dañ fay yàgg di ñëw suñu ñëwee fii lañuy ñuy footballé def fi suñuy sport def suñuy appui avant bu ñu paree dugg ci géej gi fay daaga dem ñibbi waaye gis ngeen li fi xew lii ce n'est plus à présenter littoral bi yëpp jël nañ ko fii mooy ñun amatuñu fi droit lii lépp new fi woon y a quelques mois en arrière new fi woon waaye ñëw nañ ko pare yëpp léegi nag comme lot de consolation lan la ñu defal ñun consommateurs yi mooy escalier bi ngeen gis parce que amu fi woon boo ñëwaan fii ab rang nga doon wàccee escalier bi nga xam ne jarul sax cent 200000 moom lañ fi def moom la ñuy naxee consommé euh, euh, euh, les utilisateurs de la plage pour leur dire que maintenant le problème est réglé. li ma waxee nag ci may door sama waxtaan mooy du problème benn nit wala benn kuréel problème mu sénégalais bi su ko sénégalais bëggoon mu arrêté tey dina arrêté bu soobee yàlla li ma ci wax nag ñaar la foofu laa ko conclure benn bi mooy. ñi mu concerné ñi ñu jox fii bu yóbboo di la lance un message bu yóbboo ñu bañ fee def seeni milliards parce que ñun de bu ñu yàlla dencee réew mi ku fi tabaxoon dinañ ko génne parce que sénégalais yi dañu am accès à la plage et au littoral loolu mooy premier message bi ñaareel bi mooy les autorités administratives administratives yi nga xam ne ñoom ñooy signé kayit ñu ngi leen di wax ni képp ki nga xam ne sa complicité sa responsabilité engagé na di nga rendre compte devant la justice te dootul nag foo départ yi ñu defoon tappale yi ñu doon def naan traque des biens mal acquis yi nga xam ne règlement de koon politique la woon ku fi def loo warut a def yàgg naa ko wax samay discours samay mitin wàllu suuf si ku ku fi def loo fi warut def bu soobee yàlla bu fi Macky Sall jóge di nga dem rendre compte te négociation du am intervention du am kilifa du ci dugg di nga rendre compte parce que lu Sénégal yëpp moom ñetti nit ñeenti nit jël ko lekk ci ay milliards dafa dul yoon dafa war a jeex ci réew mi. loolu lañ ci mënoon wax ci lu gàtt di wax nag nii c'est dommage gis nga fi mu ne nii ma nga commencé fële fële lañ ko jëlee hôtel yi di ñëw di ñëw. lépp jël nañ ko ba fi mu ne nii kenn amatu fi droit kenn mënatu fi def dara ok littoral bi yëpp jël nañ ko ñun dans deux dans mois mënatuñu fi ñëw naan dañ fi entraîné wu.